boobu nga doon wax arrête le pouvoir pour bien faire la war a nekk mais warul nekk pour faire mal. loolu voilà xam nga kon léegi yow opposition bii ngay wax naan lañ leen jox. yàlla nañu yàlla musal ci ñu di leen jox ñu nekk majorité kon kon loolu mooy ñun respons li fi nga waxee nag muy ay député yu yu askan wi war a fal foofu dañ ci bokk d'accord mën ak yow. man sax dama yegg ci ne proposition boo xam ne nee naa ñu defaale même élection législative defaale ko ak référendum boo xam ne. liñ ciy dugal lii la muy ensemble bële di ñëw xam nga tey mën nga ko waat député yi wala naa ñu daal di taxaw mooy ensemble bële di ñëw seizième législature bi ñu dindi ci raw gàddu maanaam kii national bi bi ñuy def muy list nationale bi day dañ système raw gàddu bi ñuy def waratul nekk dafay nekk am deuxième tour mën na cee nekk wala mu nekk kenn ku nekk la nga am ci nombre de voix comme tey ji ñëw ci dakaar set députés moo fi am tey parti au pouvoir am ci nombre vote loo xam ne trois députés la ko may trois yi la war a jël deux yi ci des dem ci ki ki ki amaat deux wala ki amaat voilà foofu laay waxee kon Sénégal mën na am cent quinze députés wala cent vingt cinq députés maximum ñu répartir ko ci département yi selon département bu nekk densité population ba nga am xam nga tey sax dakaar mën nañu ne mu ngi am sept députés pourtant département Mbacké am cinq te léegi moo raw dakaar ci norme mbooloo loolu sax lu ñu war a defaraat la. soit mode de scrutin bi. voilà mode maanaam te de non jooyanti parce que ni ñu répartir kii parce que ci forme euh, ci population Dakar nu mu toll loolu tax ñu mën a am. set suñu continuer nii. mun nañ amaat benn assemblée. waaw mën nañ ko amaat fa may wax mooy damaa jàpp ne bii di ñëw. xam nga euh, ensemble ñàkk am ay député de qualité ci kan lay aju saa su nekk ci le pouvoir en place. parce que moom mooy am ñu bari. non non waaw noonu la tàmm demee. voilà noonu parce que opposition saa yooyu wax mooy la fa nekk bariwul ña fa am gëdd ñoom ñoo fay. mais ñooy li ngay xalaat ba pare mën nga gis a lire ak yooyu ba pare naaw fekk doon député diw. bon ça taxawaay moom laa lay wax xam nga tey mën nga gis député boo xam ne benn nit boo xam ne man man man tey man li ngay wax nii yëpp malgré li may wax yëpp mosuma toog ci banque di jàng français. li ñuy def cours de soir wala cours du jour nii commerçant yi di ko def sax defu mopp dama ko iñaane anglais laa ko doon waaj a def te ci laay ci ñëwaat ak yooyu mais man na maa mën na maa lire mën na ma mooy mën na maa dawal ci français mën naa koo wax wala boog bu ma ko dee wax dana jafe mais nit mënuma ci jëw xam nga loolu benn kii la mais jàng naa wolof maanaam du ma analphabète comme ni ñu koy waxee dama jàng man li ma jàng wolof laa jàng leneen li ma jàngaat beneen langue bi ma jàng bëgguma sax nit xam ko mais soxlawut ñi ma xam danañ xam ne am na beneen langue bu ma jàng bu bokkut ak wolof mais wolof laa gën a euh, jox priorité. mais pour ñu am ay député de qualité mooy nañu am ay nit ñu am jom rek. non man je suis pas nañu am ay nit yu am jom. je ne suis vraiment pas problème bi mooy fii ñu yegg si xam nga tey lu ñu fi indi. président amul choix xam nga tey mënoon na dem. non parce que ñii mayuñ ko soit parce que li ñu doon am intention lañu amoon de faire mal jàppoon ne ñoo ko ëpp doole. xam nga tey quatre vingt article quatre vingt sept bi. suñ géntoon suñ géntoon ne maanaam am na ci biir wala quatre vingt quatre bu leen wóoroon ne maanaam nii lay demee kon du ñu yegg ak moom fii. parce que bismillah pause la. Hmm. soo dissoudre assemblée nii. Mhm. nan ngay def pour sa budget pour sa loi de finance année prochaine. voilà non xam nga sama loi de finance année prochaine li tax tey lii fi am ni ensemble bi nga naroon am mu lay gàllankoor da reconduiraat budget année bi weesu. effectivement loolu la yoon wax. mais gënut. mais mais voilà. voilà loi de finance soo fa demee tey. Mhm. lu ñu lay jàngal. Mhm. mooy aujourd'hui ci dëkk yëpp budget programme moo am budget programme politiquement. la formation politique bi nekk aujourd'hui au pouvoir dina perte at. waa no mën naa bañ a perte at. xam nga bu ñu amee beneen assemblée tey mën nga dugg ci biir moom ngay conduire mais assemblée boobu pour réew mi la. mën nga ci biir nga joyantiwaat tey. loi de finances rectificative gis rectificative. mais soo amul assemblée soo amul majorité confortable. majorité voilà mais man assemblée laay wax bu baax. xam nga tey opposition no man li ma jàpp mooy. bu doon nag may laaj sama xalaat man jàpp naa ne ñun 130 députés lu mu néew néew dañ koy am. major masorité confortable dañ koy am loolu laa jàpp. mais dama lay fekk yow ci sa logique. dama lay fekk ci maanaam bu opposition xam nga mooy li nga bëgg. opposition amoon majorité ba pare doon opposition bu baax. waaw maanaam doon ay député yu baax. léegi lu ñuy def. intérêt Sénégal am bu ñu amoon majorité ba pare ña fa nekk doon ay député du peuple maam vrai député du peuple. mais mais jàppoon ne ñu fi nekk amuñu duñ duñu député du peuple mooy ñu fi nekk. ñu ñuy ñuy dissoudre nii. non non mais député boo xam ne da naan député diw laa. député boo xam ne da ngay. mais da ngay jalgati loi député Pastef ay député Pastef lañu ah. waaw xam nga man man man man laa wax man ci boppam damay wax ne xam nga tey ngay wuyoo formation politique bi ak la ngay def ensemble ñun gis nañu député yi nga xam ne ñoo nekk Yewwi même in am na ay député yu nekkoon benn waa ah, ñoo xam ne mënu leen a xam ci ay affaire ku mel ni Nicolas Ndiaye waaw député Nicolas Ndiaye mooy député LD boobu bennoo la bokk mais kan moo ko xamee ci lu ñàkk fayda wala nangam ak nangam waaw kenn gis ko pourtant même maître Omar Youm bi muy nekk euh, ensemble donc kenn gisul aujourd'hui nga jàpp ne l'assemblée nationale bi fi nekk nekkul woon assemblée bu baax non mais ah, bu ko toppoon naga nii ñu ci campagne électorale il faut faire très attention non non non ñaari loi la nit yi dugal le gouvernement grand wax non non bul ma tardeel bul ma tardeel ci parce que député yi baax nañ wala loolu sénégalais yëpp a ko gis. non non gisuñu man fi ma leen di dugal bu ñu leen toppoon mooy dàq nañ élection présidentielle yi dëgg la wala dëgg. mais loolu est-ce que waroon nañ ko dàq. waaw loolu je ni élection mel. non est que doo may. xam nga tu deux choses différentes yow manipulateur nga nag de. nga di manipulateur. waaw bien sûr tu parles de avant les élections ñëpp ci waaw mais ñu ko defee. même nit ñooñu la. wax la. wala ñoom après dañ leen a soppi pourtant dernier projet de loi bi. non man waxuma dernier projet de loi rek. waaw non benn problème amul benn problème man ma far yow yow yow mii la laaj man ma far ci mouvance présidentielle. taxaw soo déggee xam ne je ah. ko. ah kon ci yàlla xam na dama jàpp jàpp moon yaa ngi côté. non dama ne soo déggee la xam yàlla xam na ne. yàlla xam na ne jàpp ma ne. ci côté opposition bi nga nekk. non dama ne la. soo bu ñu tardé ci loolu. yow dafa mel ni maa ngi doon xam ne rek ci côté opposition bi nga nekk. parce que ma wax <laughs> yow yow lii waa APR ñoo koy def parce que ma wax. may ma tuuti man est may est-ce may ma wax. léegi damay ñaan li nga doon wax sànq ci conse heureusement que bi ñu bokkee ci loolu nga xam ne Boubacar ba ay euh, waxi kii rek lay wax. xam nga yi wax ay waxu parrainage nangam nangam xam nga conseil constitutionnel ñoom la ñu jox wu ñu mën ñu tànnal li gën. heureusement bi ñu fi nekkee wax nga ko sànq ci euh, présidentielle yi mujj. effectivement ñoom la ñu tànnaloo te conseil constitutionnel boo ko laajee même bu laaj bi teguwul sax dafay reformuler laaj bi da koy defar ba mu baax mais jox la li nga man conseil constitutionnel bàyyi ci xel te xam ne vote moom dafa nekk devoir ci bépp sénégalais. Mhm. te Macky Sall bi mu jàppee ne bu amee ay nouveau électeur dañ koy folli laaw fu ñu waroon am deux millions yu teg xam nga ñaata lañ fa am trois cent trente quatre mille et quelques personnes moom la ñu bind yu bees trois cent euh, trois cent six mille zéro quatre vingt quinze moom mooy ci national bi vingt huit mille personnes yu teg moom mooy diaspora bi mu tuuti lool. ci loolu maanaam am boo xoolee ci variant yi nga xam ne moom la élection yi daan am dikki bi biñ ko nattee ñun ci ak suñu experts yi dañu gis ne li waroon a bindu deux mille vingt quatre pour voter mat nañu deux millions kon laaw fu ñuy waxee ay sept cent et quelques sept millions et quelques électeurs noté woon naa ko laaw foo xam ne ñu la fay waxee sept millions trois cent soixante onze électeurs yaa ngi fay wax ay neuf millions yu teg. loolu damay wax ne ñi nga xam ne dañ la wax ne peut pas voter ñu fexe ba ñu mën leen a bind. ci même bu dee fukki fan ak juróom. dina gàtt non même bu gàtt non no no am nañu moyens yi quand même bu ñu réquisitionné jàkka yi parce que Sénégal jàkka yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkka. dañ ci doon doxal